maintenant ñii di su ko ñëw jàpp naa ni ci ñoom xamuma ci ku mas doon chef de bureau. ku mas doon chef de bureau. bureau waxuma mm-hmm. service. Mm-hmm. waxuma direction baa bariwu ci. Mm-hmm. maintenant dans le gouvernement ñi nga xam ne bi ñu formé gouvernement dañ leen a jëli indi leen ci te xamañu leen woon un passé politique ou benn appartenance à, à au Pastef da ngay gis ay kàngam. yoo nga xam ni wax dëgg yàlla kuy lib ay sénégalais. yoo nga xam ne am nañ compétence pour jiite réew di nga leen ci boole. Mm-hmm. Moustapha Mamba Guirassy nous avons partagé un même gouvernement. Mm -hmm. tout le temps damay citer son exemple à de son courage politique. et de son mm-hmm. courage tout court li tax may soulever signaler courage boobu may mun a. yaa ngi fàttaliku bi ñu naan Abdoulaye Wade moo ne woon maa waxoon waxeet. Mm-hmm. ça c' est un débat ici maa waxoon waxeet. or dañu dénaturer li mu wax. parce que Wade était convaincu li liñ ko waxloo woon musu ko wax et on était en conseil des ministres Abdoulaye bi je n'ai jamais dit boobu on parlait de d'un autre mandat des trucs comme sax il dit je n'ai jamais dit alors ñun ñëpp ñu toog Guirassy après a euh, demandé la parole président Wade ne ko oui Moustapha mu ko oui président moi je crois que vous avez eu à le dire Wade était furieux quoi muy calme mu war wax pare mun ko oui mais monsieur le président euh, fii ñunu neen la te ñun bëgguñu ku lay jam mais j'ai l'impression que vous l'avez dit li mu doon wax wóor na ko mais il a été très poli hmm. très correct j'ai l'impression que vous avez à le dire mais Wade comme Wade est intelligent Wade ni ko vous pouvez m'apporter de la preuve grâce ni ko je vais essayer mun ko passé mu voir après le conseil lam doon wax xam ne ñun ñëpp xam ne li mu wax dëgg la mais boole na ko ak yar ak teggin ak fermeté moo tax tous les jours je je je souligne le courage de de de Moustapha Guirassy y a d'autres yoo nga xam ne am nañu yaakaar ci ñoom si vous prenez le nouveau ministre de l'agriculture man ginnaaw yàlla votre confrère Alassane Samba Diop moo ma daan wax affaire ba ay temps may wax président Macky Sall ni ko ce garçon là il faut vous intéresser à lui parce que li ma gis mu ko def Mabouba Diagne ah, li ma gis mu di ko def c'est quelqu'un boo nga xam bu ko joxee ay responsabilités am na lu mu war a mën a apporter ce pays là vous prenez l'ancien ministre de l'actuel ministre des forces ñëpp xam nañ ne au niveau de l'armée parce que moi j'ai la chance d'avoir dans notre parti quatre anciens colonels de l'armée donc euh, am na tuuti loo nga xam ne xam naa ko ci muy déjà yoo nga xam dañu mën a dañu mës a am ci ñoom cofeel maanaam les militaires dañu am ci moom respect donc il boo ko beaucoup d'hommes comme ça même ñi nga xam ne c'est de nouveaux venus si je prends l'exemple de El Malick ni ma koy déggee muy comporté woo son discours même dans l'opposition il a l'air de quelqu'un de très pertinent maintenant am ay am ay joueurs taxul am équipe bu baax l'exemple du Paris Saint-Germain est hmm. jëli na Messi jëli ñeneen ña dajale leen mënu woon gañe kenn. dajale maintenant il appartient aux Sénégalais ñu xam fan lañ bëgg a dem avant même le le le pouvoir mais les Sénégalais eux-mêmes pourquoi ma ne ñun ñu war a xam fu ñu bëgg a dem c'est vrai que l'actuel pouvoir. bi ñu nekkee dans l'opposition dig nañ ñu lu ne jaay ñu li ñaan projet te man xaw ma sax projet bi lam tax góobu ni sénégalais yi ko xam bare na soo wax dañ naan projet bi projet bi donc mu mel ni tey sénégal yi li ñuy xaar mooy. projet bi kay Sonko kii na ko ko wax na ko ci tele yi ko wax na lépp ci télé yi. <laughs> waaw mais xam nga man tey boo ni ma woon projet bi. très honnêtement. boo bëggee xam lan mooy projet bi. Mhm. demal démarrer 2014. waaw nga déglu les vidéos de Ousmane Sonko. ah loolu mooy projet <laughs> non non non je boo bëggee comprendre c'est quoi la quintessence du projet je pense que dans tous les secteurs de la vie économique euh, moom wax na ni mu gisee mbir mi et d'ailleurs il y, y a des choses qui les justement moo tax ma ne il faut que sénégalais yi ñun ñooy xam lan lañu bëgg ci réew mi. Mm-hmm. on a deux def leen ko léegi. mais loolu la ñu wax. moom laa wax dama ni sénégalais yi ni leen yéene a ko wax def leen ko léegi te man ma bokk ci ñi gëm ni loolu mënagul a nekk. et je le dis en toute objectivité parce que tey bu ma gisee nii président Macky Sall dafa doon subventionné ceeb ba tax ba yow boo jëndee kilo ceeb lu mu gàtt gàtt am na juróomi dërëm mbaa fukki dërëm yoo état bi jëlal na la ko en charge boo jëndee suukar am na loolu état bi jëlal en charge. boo jëndee essence non non ceeb bi li waroon jar 500 300 lañ koy jaayee mooy. Euh, Paris parfumé bi. oui Macky Sall dafa newoon ku bëgg parfumé nga jëndal sa bopp absolument nga jëndal ko sa bopp mais am nga riz bu baax boo nga xam mën nga ko jënd c' est pour dire que subvention bi état bi doon def tey xam nga ni bu ñu toppee FMI ak banque mondiale danañ ko day yàgg nañ ko yàgg nañu poser ce problème. Mhm. que subvention bi nañ ko dindi def la vérité des prix. Macky Sall moo bañoon moo bañoon justement mais subvention boo ko dindee tey prix yi non seulement doo wàññi yokk donc sénégalais mën nañ taxaw ne leen yéen ko waxoon def leen ko léegi. Mhm. sachant nu ñu ko def il faut dire la vérité boo jëlee l'emploi des jeunes tey bu ñu taxawee ne xale yi def nii dañ leen wutal liggéey xam nañ ne ñu ko donc sénégal yi am nañu droit tey taxaw ñu ne lii ngeen santoon ñoo ko def leen ko mais également les sénégalais am nañ possibilité am beneen posture mooy xam na ni ñoom ñii la ñu waxoon mënul nekk qu'est-ce qu'il faut faire da leen fiy jëlee léegi tu peux pas mm-hmm. lan nga mën a def mooy muñal leen comprendre leen accompagner leen surtout c'est pourquoi moi personnellement may wax une opposition constructive lii de ànduma ci mais du ma yem ci ne ànduma ci dama lay wax ni ñu ko war a defee soo defee xayrun soo deful man j'ai fait mon devoir